mais respect man naa la yaa ngi na ngeen def waay yéen a ngi am jàmm. macha allah. bisimilah bisimilah. boo paree gouvernement yegg lu mu lu ñàkk foo am ñaar. ambassadeur des États-Unis. wallaay na si jàmm yàgg. gars naa leen. sur la presse sénégalaise maa leen nuyu. di leen ziare di leen waaye fii la rawee maa ngi leen di bëggee man lu bëree bëri wax dëgg yàlla bàyyi la ñu am jàmm macha allah shukran macha allah waaw li indi sunu teewaay ci bis bi tey day wareef parce que sunu rakk sunu doom sunu xarit Pawlish mbay mooy tudd rafet na ci ñun dëgg yàlla ci fi nga xam ne fa la bokk tey muy ci njabootu son excellence président wale Wally Ballago Seck di Faramareen piir Sénégal gépp xam ko mu yàgg ak président démb tey soog a ñëw rafet tey bu lu mel xewe mu yëy ci téléphone am woo ma allo monsieur le ministre ma ne ko waaw mënuma sa rakk sa doom yàlla may na ko ay gan muy ay seex benn bu góor benn bu jigéen te bëggoon naa tew ci ma ko ah police de man li ma gën a jafe sama àdduna mooy yeewu bëccëg ndax wax dëgg yàlla dañuy nekk ci liggéey bi studio nekk ci activité yi balaa ñoo tëdd sept heures waaye de dinaa ñëw ci bi yaakaar naa nag presse bi biñ ma dalee xam ak léegi ñu ngi may doo gis ki tudd liñ may gis ci programme yëpp boo mayeetul ngoon gi lay doon wala guddi waaye tudd moom yow 9h ñëw ah du ma ne bu tàmbalewul tey it bu amee ñaar ñettu li ko waral nag yëg-yëg la ak fonkeel ak cofeel boo xam ne ñun yëkkati na ci suñu xol bi jëmee ci ki nga xam ne tey mooy Pawlish Mbaye suñu rakk la sunu doom la suñu xarit la lii wareef la du neexal du du du du du du du propagande du dara obligation la dafa bokk ci ñun nekk suñu njaboot nekk suñu jeune frère bu xewlee dañu war a bàyyi lépp lu ñu jàppoon ñu teewal ko di ma war a suñu teewaay. macha alors euh, ba tey Omaro ñu gis que comme ni nga koy waxee rek ci euh, gouvernement Waly Ballago bi. Mm. mu daal di boo xam ne pour répétition la. Mm. daal lay jox yeneen fonction mm. confiance bi nga xam ni moom maar am na ko ci yow. Mm-hmm. waa sant yàlla rek confiance boobu dara du ko may du liggéey xam nga affaire bi amul secret c'est le travail paye il faut nit ñi xam ni. liggéey mooy liggéey maam Cheikh Fall dafa am baat bu solo bu mu dafa ne ay doom ay doom ay doom ba mu ñetti yoon mu ne maa ngi xaar ba bis penc yàlla fay wax ba jëf kon am na loo xam ne ala kulli xaalim du am lu wax ji bari bari bari bari bari ci Omaro su àndatu woon ak jëf responsabilité yi ak fonction yi ak taxawaay yi moom ci président du ko am waaye nag wax ji lay jëf ji da ko amaana nag du lépp lu ñu mën a gis waaye man xam naa ne man président mi may seetaan xam na ni loo ma di jëf ëpp lu muy wax. loolu nag day waral fonction bu ne ak responsabilité bu ne mën ko am ci liggéey bi parce que xam nga di la war te yaa nga ca ba tax na dañ koy ñaan rek tournée internationale bi nga xam ne ñu ngi koy préparé war a dem diggante Hollande Allemagne Portugal ah Suisse Belgique France bil euh, France Paris ak Espagne Bilbao Italie vingt 22 ak ADBI yàlla ci yàlla def sutura def ci ndam def ci barke ba ñu dem ci jàmm dellusiwaat ci jàmm incha allah ku ne gis na barke Demba Ndiaye rek bu ñu demee Allemagne ci festival bu mag bi nga xam ne. Eh, tubaab yee ko organisé invité ci président ñu dem teew ci ay nasaraan ñoo nekkoon ci ginnaawam di ko malaxal di ko musigal salle bi ñu toogit bu ne salle deux mille places mille huit cent personnes yi ay sénégalais lañ yeneen deux cent personnes yi ngi génne gis ci ay africain ak ay sénégalais yi yeneen xeet wax dëgg yàlla kon loolu mi ngi wane ne liggéey bi mi ngi évolué wu musique bi mi ngi dox kon moom dañ koy ñaanal studio de répétition yeeg studio d'enregistrement yeeg soirée yeeg bu mu ci a doon benn objectif la am mooy drapeau Sénégal bi jug ca ndax mooy ambassadeur de la musique sénégalaise c'est le king of the king le roi de la musique américaine sa majesté président son excellence kon li mooy nga xam ne yéene ko ci musique bi te bëgg ko muy téye drapeau bi wasaare ko à travers le monde Sénégal gépp ak àddina gépp mën a bàyyi xel musique Sénégal yàlla ko ci yàlla defal ndam ak tawféex li ki des danañ amaat yeneen jotaay. danañ ko wéyale incha allah mais ñu ngi wax ne image Wally Seck dafa late yow lan ñooñu. li ñu bëgg a wax rek la ñuy wax ak li ñu xalaat wax waaye euh, ku dee ci marché yaa tàgg sa bopp wolof njaay la ou ku dee ci marché yaa tàgg sa bopp waa luy liggéeyam waaye musique lan mooy yitteem nit ñi bëgg ko lan mooy mbégteem fu ne mu fees waa kooku bëgg nit ñi gisul ku ñu gis maytul ma ku yor njariñ ba noppi foo ko fekk mu ne fatu naa yorul dara maa la ko kuñ na njariñ la yor foo ko fekk mun a tëju naa fatu naa dama xat dama seere dama nekk ci ay yëf baal ne ma ko ba ci kanam baa ko fatu jug dem yorul rahmatan lil alamina yërmande ku mu nekk ci yow da jege mbooloo mi ngi jariñoo ko yónent yi yàlla mos a yónni yëpp yónni ci kenn ne ko tëju ci nekk yónni wu ci kenn ne ko yemal ci sab saal au contraire da leen ni yéen ba noppi dig leen leen ñu gàddaayee dëkk ba ñu nekk tàbbi ci yeneen dëkk ngir jariñ ak passé li nga xam ne mooy message bi nga ne mooy la message di jël kon nag président li ko war mooy di génn di dem ci marché di génn di dem ci foyer yi di génn dem ci restaurant yeeg salon de coiffure yi di génn di dem ci école yeeg mbootaay yi doomi aadama yi daje parce que loolu la ko yàlla nattoo ci àdduna ñi yàlla nattoo ñu war a xëy di làkkatu ak di daw a kotaju koy def de parce que nag tubarkàlla macha allah am loo xam ne bu ko doon liggéey tey du bëgg am loo xam ne tey liggéey ci dëkk bii wala mu ko doon def dana tal leneen lu dul ku ko ak ku ko gis ndokk yàlla nag ba mu nekkee ci njub ak maax sutura ak teraanga ba dawul kenn làkkatul kenn ku bëgg filmer ñëwul filmer ku bëgg vidéo ñëwul vidéo ku bëgg interview ñëwul interview parce que li ngay yëngu moo ko laaj li ngay jaay moo lay jaay su ma bàyyi Aliou Kassé ko wayoon en 1994 muy caabi bi li ngay jaay moo lay jaay vive la musique sénégalaise jërë ngeen jëfati ah mon fils mais comment tu vas mes respects mes respects tu vas bien bàyyi donc donc ça va. je suis content. sa ñëw bi sa sa moom mbay. nit amul lu bisam. dëgg la yaa ko moom mbay. soo soo bés bi tey mooy sama lépp sama àddina. ndeysaan mooy sama lépp. Mhm. tey def ko tey nawle. def ko yëfi mhm. góor parce que nit lu amul lu bisam tey ci àddina am. lu dul man lii la am ci àddina lii la am lii mhm. la te liggéeyu suñu borom yàlla may li nga am yàlla dafa wax ci àddina mayul diglewul alal ne dinaa la ko may diglewul ne di nga gudd fan diglewul ne dinaa la may doom hmm. su yàlla may ay seex nga teew ci dama ciy sant suñu borom sant yàlla dina ci gërëm yàlla na yàlla suñu borom sa bi rek mooy sama bés sama àdduna bés bi laa am ci àddina hmm. bes bi hmm. rek laa am ci àddina ku nekk sa bés la bés bi mooy sama lépp ci àddina du ma ci mer du ma ci xuloo du ci def lenn tey lu ma doon def nit ci lu bon wala lu lépp ci àddina bés bi tey dina tax ma bàyyi lépp ci àddina kontaan naa yal na yàlla fay li nga def ni la kilifa di def li nga def ni la nawle di def yal na yàlla suturaal yal na yàlla gën a taxaw ci darajaay Seydou naa ma loolu mosoon def ci àddina mhm. loolu mosoon a wax ci àddina mhm. ma gàcceel nga ma jàngal nga ma àddina na yàlla suturaal yal yàlla taxaw kontaan naa loolu kontaan naa loolu yal na fay